dugg ci lu bon di ca joué lu bon. di nekk yaay ju bon may ma Adja may ma waaw may ma Adja bu ma ban bu ma baraj baraji bul ma baraj baraji may ma.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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دينيو بيم تيينين وقتان يو خمني دي لمب أكتوال تي أم تريمي الحمد لله رب العالمين سيدة مريم مؤامر كمان دينيو ديك إساني بين سيري بطو دو إنفلا سيري بنا لمبي دك بي بس كمك ني نيجي نان سيري بي باقول جني نيجي نان سيري بي بر دارا نيكوسي لكن ما بغي خمي أنتان كأستاذ يو لنغا بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم خمغ لن مونيو يخنون بي فرانكوفوني ولا صح بي أفريكي عن جنرال دي نمونا توب دو توباب يتدوني أي توباب نون دنيو جدو أم سوني فالر أم لو خمني كن خمكون أم نيو خمني c'était impensable 20 ans 30 ans 40 ans y dépassaient boo ak suñu jamono kenn xalaatul woon lu bon nit di ko def di ko fësal ba di ko génn ci ay télé lu nit daan def lu bon danga ko doon def ba kenn du ko yëg ma ne la jigéen dina nekk di jaay boppam sax nga dëkk ak moom wala mu teg sa wet kenn du xam li muy def ndax lu muy def guddi la koy def ndax ci sutura léegi nag kenn xamatul kenn kenn déglootul kenn kenn weggatul kenn kenn risatul kenn ñun de xanaa ñooy waxkat yi ndax ñun la yàlla nattu ñuy ay prêcheur ñun ay daa ya nga xam ne dañuy wax ndax nit ñi dégg nit ñi nga xam ne nag am nañ ay nopp yoo xam ne nopp yu déglu na ah, nopp yu déglu ndax dañuy wax ne yàlla na ñuy baal yàlla di boole ci ñi nga xam ne xaw ah, la ida samiul qawla yes ida samiul qawla yattabuna ahsana ñu déggee wax dañuy topp la ca gën a baax ñu topp ko série bii bi ñuy wax infidèle ñu ngi naan am na bës am na ay ñaata millions de vues ñun dañ ne woon sax duñ ci wax waaye euh, ku ci nekk ña la fonk ak ña la wóolu ñoo la sonal ñoo ne ma mère Kéemaan wax ci même bu dul lu bari sax ma ne lu ma ci wax sama mbokk saa si bëri wax nañ ko waaye dama ne loo wax rek da leen di jox bës mais yàlla na bu musal ci bës bu bon nit xëy na rek siiw ci lu bon yàlla na yàlla musal bu ñuy siiw ñu siiw ci lu baax waaye di wane ay jëf yu ñaaw. am na yeneen i série secret de famille yeneen yi même idole bi ñu ko fi créé mais yooyu kenn du ko suivre pourquoi te pourtant mi ngi wax loo xam ne ay sunu wala ay sunu kii réalité la mais lu tax ngeen choisir ay langage yu bon lu tax ngeen choisir di wan xale yi nan lañuy ñuy dem di ute far ah man nga sama doom du dem salle de musculation pare naa ci man man de kenn lu ma tàggoo te salle de musculation wane nañ ne foofu la ñuy ute xale yu góor yi nga xam ne dañoo sport ba jàpp forme jigéen bu bon bu bëgg a dem uti fan foofu ngay dem ñëpp xam nañ ko. Eh, da ngeen defe ne eh, eh. da ngeen defe ne da ngeen di da ngeen di da di da ngeen di def promotion salle de salle de sport yi maanaam da ngeen di wan xale yi yoon bi ñuy jaar pour mooy yàlla ku ko xamuloo li xam na foofu benn ñaareel ba ñaareel ba xale bu sell di jàng moom mooy dof ba di ngeen ko jiiñ sax ne bu dee moo frère am ñoo dëkk. ngeen ne ñu ngay def lu bon xoolal ma loolu xoolal ma yi esprit. mère yi xaaral yow da nga war a comprendre yéen seen génération suñu bos bokkul c'est que yéen loo leen gis rek. da ngeen déedéet yéen loo leen gis hmm. da ngeen di jugé naan lii lii déedéet ñoom ils n'ont fait que montrer la réalité li xew ci dëkk bi moo fi am. du comme ça déedéet mais langage bii nga gis ci série bi mais lii la xale yi wax te ils disent même pire man j'entends pire. dans la rue j'entends pire. waaye ñun nag ah. kon suñu suñu génération duñu ñu accepter boobu langage. ñun lii. lu bon la. mais seen doom loolu la ñu lu bon rek la. seen seen doom loolu la ñuy waxee. te pour pourtant pour man leneen ngeen ko waroon gisee da ngeen waroon gisee au contraire ne yéen ñii. Mm. dañoo ubbi mm. leen loo xam ne yéen normalement gisoo leen ko maanaam seen i doom fu ñu toogee di wax yéen fi ngeen loo xam ne du leen fa fekk yéen li ñuy wax ak li ñuy jëf lii moo leen war a wan ne yéen xamoo leen dara ci génération bi. lii mm. série bi dafa waroon au contraire ubbi seen bët. ngeen gën a mën a nekk surveiller seen doom ak xam ci lan la ñuy dugg.

képp ko am diine am vision bëgg say doom baax du ñu seetaan infidèle duñ ko topp ndax li ñu leen di jël rek li xale yi def njuuj njaaj yi def pour def lu bon duma ci ànd tey duma ci ànd te man ne la lii yàq mi ngi yàq valeur jigéen ay woy boo na xamoon yàlla ni mu suturaale jigéen mais jigéen ñi li lañuy def lan lañ ci duñ mën yàlla suturaal nañu waaye si ñoom suturaal dama ne jigéen bu xamoon boppam tey président de la république jigéen a koy doon bu ñu xamoon li leen yàlla wan bu ñu xamoon li ñu yàlla jox ñun ñoo am sóoratul nisa ñoo am sóoratul mariam ñoo am saaru jigéen ñëpp ñoo am sóoratul nuur yàlla won nañu noo xam ne mais ñun ñoo ñàkk fayda ak ñenn ñi nga xam ne soo nañ parce que fii koo gis muy joué yéen yi yi amul kilifa kilifa ma matu ndax doo bàyyi sa doom mu dem ci série yoo xam ne daf fay joué lu bon nga di ko bàyyi mais ah! Ah, mais ah! le cinéma mais yo li ngay joué ça n'a absolument rien à voir. mais voilà nga non c'est pas moi ci nga amuñu ci nga xamuñu xamuñu valeur ji di di rakku jabaram de nga am am. waaye kenn mësu koo génne mu nekk lu fes lu ñaaw li ñu defe ne ñu defe ne règle de vie la ñu defe ne lii c'est la règle mais xam mën na la donc xale bu dem sa sa sa mag am xëy na appartement nga nga dem mu yóbbu la ku njëkk dañuy wax toujours ginnaaw tool mais kenn dawul xalaat loolu rarement lay doon ginnaaw tool mooy sa rakku jabar ginnaaw tool mooy sa rakku jabar da ko war a téye sàmm ko comme sa rakk bi nga bokkoon ndey bàyyi mais doo ko tëddee ñu wan leen ne lii du dara mu naan am naa jabar am maîtresse ci kër. xoolama du ñaaw loolu mais déedéet mais. xoolama du ñaaw loolu loolu ça jigéen ñi yor seeni rakk ci kër yi gën a def ñoom. dama ne am na ba tey mais bu ñu wan yoon bi ne. nii la yombe xale bu góor bi di ko def Marianne may ma may ma tuuti rek. Ah, may ma tuuti ma eggale. ma ne la duñ ko wane mu mel ni lii règle de kii la c'est la règle. mais ban règle li maanaam règle loo xam ko war a dox ci vie bi. xale bu góor bi mi ngi nii day def lu ko neex. naan am naa jabar am naa maîtresse xoola ma yox yu bon yooyu langage yu bon. non xaaral ma wax la. man ku jigéen kële bàyyi fa jëkkëram naan jëkkëram dafa tële. dem ci xale bu góor bu dem bu dem sport ba jàpp. musiba naaru laay la ajaa mais dafa war a au contraire ubbi ñun dañoo war a ubbi xel li xale yi. ne leen infidélité infidélité baaxul mooy ah. yàlla baaxul day tasum réew mooy yàlla day delloo ginnaaw réew mooy yàlla day delloo ginnaaw góor day delloo ginnaaw jigéen ku ci am jëkkër di mooy yàlla yaa ngi toroxal sa bopp te boo te la lay dal xama boo ko de yow ko góor fexeel ne bu ñu la yàlla mayee tuuti nga nekk say say say business ak say yu ma xamul di ko réussir di nga dem ba dootoo amati dara day gàttal fan day yàq diine day gàttal wërsëg day indi musiba ci mu déew. man pour man honnêtement les gens ont mal compris am na dëkk yoo xam ne je ne veux pas ñëpp xam nañ ni ñu mujj ay guerre civile ay bon ba léegi ba léegi barki Dembo Ndiaye ñu ngi am jëye joo xam ne xaayal ku dégg séeréer mooy yàlla kese fu nit musaan di mooy yàlla fa ngay dem def ko sa paradis tey tekkeetuñu dara parce que yàlla da leen a mere muy beneen dëkk ñun bëgguñu Sénégal loolu dal ñu. bëgguñu ñuy valider bëgguñu Marianne bëgguñu ñuy valider mooy yàlla. te gis nga série bii mooy lii validé dama ne la seytaane bu jógee di dugg ci nit ku baax ci jigéen bu baax xam nga lan lay def ci xel nit ñi ñu ne da doon jaamu yàlla di ngis tal yàlla toroxal ko yàlla toroxal kenn ci àddina macha allah inna allahu wa sattar kenn ci àddina seytaane mooy ñëw dugg ci nit ku jigéen ka di ko wax loo ku nekk man gis naa benn jigéen bu ay jinne di ko mën a jëkkëram man ak sa borom sa xarit yi laay defal sa kawlal bii laay def lu bon ci la jëkkër ji commencé xam ne kii am na lu ko dugg te kooku xaafisul xuraan la mi ngi yor ay daaraam yor ay internam doo ko gëm ci Sénégal gii <laughs> ma xam ko lool jëkkër ji ne ko diw ma ngay wax ma bitim réew te ñett ñi mu ku ci nekk ngi ci bitim réew mu woo téléphone ne leen mën na sama jabar lii la doon wax ñooñ ne ko jógal ci moom faj ko seytaane day bañ jigéen bu baax seytaane day bañ nga am ndax nee nañ ah, المرأة مدرسة ida أعتدتها أعتدت شعبا طيب الأغراق yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen école la heure boo ko tàggatee yar ko tàggat nga génération boo xam ne bu mucc ayib la ñun nag génération bu nasax lañ bëgg am ndax bu dee ñii di génn ci série yu bon yii ñuy wax infidel ñoo naan ñooy nekk ay yaay ëllëg may wax. ka ca gën a wow bat naan am naa ñaari doom yow doo rus am nga ñaari doom ngay jëkkati ñuy ñuy gis say say say dësu nga naan am naa ñaari doom say doom bu ñu toogee vingt ans gis seen yaay doon na joué ci série boo xam ne mi ngi nii baaxul mi ngi wane ay cëram fan la jëm fan la xale yooyu jëm doo leen xool seen doom yi ngeen di am ëllëg si biir doo leen xool seen bopp mais jigéen amatul valeur te jigéen lu ko neex mu def ko kenn forcé wu leen dara ku ci dem di jouer ci foofu dañ laa fay xaalis. man de pour man man xaalis jarlu ma man xaalis jarlu ma may dem di jouer yenn jeux yi ndax lenn dama bu njëkk nee nañ ay photo amoon ak yoo xam mais léegi internet bi loo ci des à vie loo fi def à vie la à vie la lay topp topp sa njaboot dinañ ko gis wayu yàlla na yàlla musal ci lu bon. yéen ñi nga xam ne am ngeen capacité ci seen doom am ngeen ci droit way way way bàyyi leen xale yi bàyyi dem ci casting yu bon yi kuñ ci proposé role bu bon na bañ jigéen moomul loolu te heure bu jigéen ñëpp bone Sénégal musiba dal ko ñun nag ñu ngi fi de ñu ngi fi de ku yebu nag ngeen wax lu leen neex mais du ñu avaliser jamais ay xale ay jigéen di def lu bon ñu leen ciy bàyyi. ay jigéen góor ñi lu ñu mun. Ah. nee nañ jullit yàlla du ko du ko yàlla ay mbir yii la koy jox nee na boo gisee lu bon man min raa minkum munkaran far yughayyirhu bi yadihi mooy borom doole yéen suñu autorité maa ngi leen wax gis nga bàyyi leen lii mu rëcc Sénégal di ngeen toog ba doon leen contre xarit jigéen yi benn ñun mënu ci dara ndax seen xaalis lañ yor fay seen i fay seen droit démocratie lañ y a des limites ah man raa minkum munkar fa bi yadi wa in lam yastati fa bi lisaani wa min yastati fa bi qalbi wa dalika adafu l iman ñun nag ñu ngi wax ndax ustaas yi wax nañ ci bu fekkee ne gis nañ du ñaaw bàyyi nit di ko def mënuñu koo dindi ndax newuñu booloo bu ñu booloo ñun ñëpp ustaas yéeg association féminine yéeg association religieuse yi ñun ñëpp ñu wàcc te tali bi ne lii na fi dakk dina fi dakk mais déedéet wax rek lañ ci mën fu mu ne booleeguñu ci loolu amaguñu loolu Sénégal benn boo ca mënul nga wax mooy li ñuy def nii mère man ci la bokk wax na man day sama doom bu joué ci film <laughs> ku ma xamit nga bokk sama jamaa bi bokk sama daara ji su <laughs> ma yóbbu ci kër gi nga di la jàngal jéeg sa doom du joué ci infidèle du joué ci leneen lu ñu niroog infidèle du joué du dem di dugg ci lu bon di ca joué lu bon. waaw di nekk yaay ju bon may ma ajaa may ma waaw may ma Adja bu ma ban bu ma baraj baraji bul ma baraj baraji may ma may ma suñ ko munul nag ñu jooyee ko ci suñu xol yi te loolu mooy iman bu daif man du ma ca bokk ndax dinaa wax ba yàlla xam ne wax naa ku may dégg dégg ma ñu ànd ak man ànd ma wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.